partout dans le monde ñu toog fii nag tey ci këram fas yéene ko tàllal suñu micro mu am ay kàddu yoo xam ne dina ko jàllale euh, sëñ Seexuna gannaaw bi ñu la nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu euh, jërëjëf Bousso Bally ñu lay laaj euh, bis bi nga xam ne moom ngeen woteel seen maam ana yan kàddu nga ci sànni ngir ñi nga xam ne ñooy ànd ak suñu site bi di Tawfekh Production bisimilah ñi leen nuyu yéen ñëpp ci dem siyaar bu baax a baax di leen santam ci jokk ngeen jokkoo bokk yi ñu seq ba tax ngeen bàyyi seen yitt yëpp ñëw jàppale ci bis bi eh, yéen waa Tawfekh Production ndax daaw ñëw ngeen fi eh, yàlla ngeen fi yàgg ñëw bi jaay Xadim Mustafa ndax eh, képp koo xam ne kii fu ñuy fàttali ko nit ñu baax ñee nga dafa teew mën nga ñaana bu baax a baax ndax nit ñu baax ñi bu ñu dee dee fàttaliku fàttalikuñ leen ngir ngir daje di lekk baa ñu dajal di naan dañ leen fàttaliku ngir bëgg nit ñi xam seeni jikko ba mën caa roy eh, loolu rek moo tax ñu leen fàttaliku ki nga xam ne nag moo ñu fa dajale muy Cheikh Moussa Mbakkar gi kenn la woon ci taalibe Sëriñ Tuubaa waaye itam nag di mbokkam ndax boo xoolee moom wet wet goo ko topp ci fi askanoo day delluwaat ci sëñ bi ndax boo xoolee wàllu kon ndeyam yaay ndey mi ngi tudd Kanni Mbàkke Kanni Mbàkke moomu Balla jur ko Aysa Balla maam Balla Mbàkke jur ko kon kooku dafa ne kon maam Balla moom mi moom si Mor Anta Sali mu ci mu ci Xaadimu kon foofu gis nañ fa bokkee Kanni Mbàkke moom bàyyam mi ngi tudd Mor Jee Mor Jee moom yi aw ñam moo jur Ibrahima aw ñang maam Maharam ca boo xoolee foofu Ibrahima aw ñang ak maam ak ak maam Balla bokk maam Maharam waaye boo foo xoolee ci wàllu kër baayam muy Serigne Bousso be da tudd sëriñ buso Bousso Soxna Astawala Bousso Soxna Astawala Mbacke tudd Ahmadou Soxna Bousso bi mooy baayam surtout ci euh, euh, am euh, Serigne Bousso mi Soxna Astawala mi nga xam ne mooy mooy wajuram ku ñuy wax Amadou Soxna Bousso moo ko jur Amadou Soxna Bousso moomee maam Maharam moo ko jur maam Maharam moom mi ko jur nag moo jur Ibrahima Ñang Ibrahima Aw Ñang moo jur tam maam la maam Balla moo jur si moom si moom Sële waxoon naa la ko Ibrahima Aw Ñang moo tam moo jur Mor Jeey mi jur eh, Kani Mbàkke mi yaayam kon dafa mel ne moom eh, bu bu fekkonte ne daa jàppoon ci cër boobu képp suñ tubaab ci doyloo ko tam lu mu bëgg am na ko am waaye loolu ba mu ko xamee tam téewut bi nga xamante ne sëriñ bu mi nga xam mooy seen bayur teel a xam sëriñ Tuubaa lool euh, ndax ci nekkoon ci ñi nekkoon ci loxoom ci la bokk teel a xam tam ko yàlla may teel a xam ak fi mbir mi mujj ba tax na jamono yooyu nga xam ne sëriñ bi wóoteegul nga ne booba si mo euh, si Mor am sali mi mu nekkoon na nijaayam jooju di sëriñ Bousso ci la sëriñ bu soobee ndax booba sëriñ Tuubaa ci moom dafa ñëw ci moom laaj ko ñaari laaj ñaari laaj yi benn bi daf koo laaj ne ko ndax eh, suuf si ñuy dox ci la Rasulullah sallallahu wa sallam doon dox ba am li ma am si mu soobee ko waaw waaw mu demaat ba mu yàgg mu desuwaat ne ko ndax asamaan si moo ko tiimoon mu ne kon dara wëyul loolu ba boobu waxut woote yàlla mayoon la. si Moussa bi daal ne ko Amadou mu ne ko Mbacke mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko dama maa bëgg nga xam ne bis tey jébbal naa la képp ko askono ci man waaye nag Mbacke bu su mii def naa ko muy seere si boobu si Mbacke bu su gone la mu jébbal ko kenn ko jébbal suñu Tuubaa boo déggee si Mbacke bu su di wax naan eh, bu ëllëg yomal xiyaamatee kenn ku nekk yaa ngi wax ne yaa njëkk jox si bisu bopp waaye boobaa dañ xam man nii mën a loolu moo tax ma di ko wax ndax si bisu ko jibloon ci boobu si mu wëteegul ca keneen ku jib rek ginnaaw wëte ba nga jib la Sëñ Tuubaa moom ci bopp nag ma waxaat ci lam ñi boppam ne sëñ bu soobee day noppal na ma ndax ndab yi ma jox yëpp da ko war a xas ba mu set nga ni tibb def ci rek laa ci def duy duy rek laa ci def loolu mooy wax ñi ñi ñi mu ko jox daf leen defar bañ mel nañ war a mel jox ko suñ daw leen jëbal suñ tubaa suñ tubaa moom sonnu ci keneen ku mën doon bala am na foofu suñ tubaa jaar yow eh, luñ mën a nett wala luñ mënti nett li doo ko def ci yow la muy def ma euh, Massamba ku tudd euh, euh, Serigne Massamba Kanni di nga tudd xam-xam waaye di nga tudd ndigal li nga xam ne moom la ko Serigne mag bi joxoon ngir mu sanc barab bi loolu ana lan nga ñu ciy dikkal. waaw jërëjëf sëñ Gede ku sëñ Massamba Kanni da tudd xam-xam tudd ko sëñ bi joxoon ngir mu sanc dëkk bi bu day xam-xam Cheikhul Khadim day mbir moo xam ne da koo tegoon ci wàccuwaay bu mag a mag a mag ndax xam-xam mooy tax nit ki mën a doon benn njiit boo xam ne yow mat aw nit. loolu maa tax sëñ sëñ Tuubaa ñim jiitu lañ ci yoon ñëpp boo leen euh, xoole ay ni leen yoo xam ne dañuy am xam-xam ca loolu sëñ Massamba Kanni ni euh, moom yàlla laa defoon naka jag mu bokk askan woo xam ne dañoo yàgg foog xam-xam waaye tamit bim jaayantiwaate wala yeesulaate njaayam jaayantam ci sëñ bi ngir mu bañ a gudd sëñ Tuubaa daf ko gën a ñaaxaaroon ci xam-xam fekk boobu sax am na lu mu xamoon waaye sëñ teewul da koo gën a soññ ci mu gën a xóotal àlliwoom ba nañ ay leetar yoo xam ne moom boo ma nga ca dëkk bu ñu caal leen ca borom xam bu ñu tudde sëñ Mor Galaay Jaw ca Njàmbur moom sëñ Masamba Kanni di di bind leetar Sayxul Xadim naan ko téere ya nga ma ma jàng ko ci sa ndigal maa ngi lay xamal téere yooyu jàng naa ko fii ban jeex tàkk léegi sa rek lay diglu kon loolu day teg ca la xam-xam boo xam ne euh, nekkoon na ci moom te loolu it boo ñu gisee leen ci ay taalifam day teg ca la loolu man rek eh, ci gàttal xam naa ci taalifam loo xam ne mën na juróom-ñeenti taalif yoo xam ne bokkuñu mhm. te it eh, taalif yi xam-xam moo ca nekk ndax la ca nit ñi gën a soxla woo day mel ne ca la ca la taxaw ca mooy lu jëm ci pas-pas lu jëm ci yitte lu jëm ci ak jaayante lu jëm ci jéggul yàlla subhanahu wa taala lépp loo xam daal day defar ruux mhm. kon xam-xam day mbir moo xam da koo yitte loon trop waaye ba tey mu bay ci waar mhm. waaye dëkk bi tamit mu sampoon fi daara joo xam daaray xam-xam la woon ak daaray alquran al karim moom ci boppam daana jàngale léeg-léeg sampoon na fi mu daara fii ku ñu tudd sëñ Ibrahima Touré moo ko yoroon moo doon waajuru bàyyi ji tur mi nekkoon kër sëñ Abdul Qadir eh, dëkk bi kon ñu bëree bari jàng nañ fi waaye ñu bari ba tey yar na leen fi ca loolu xam-xam boobu nga wax moo ko waral. kon eh, sëñ Jili gannaaw buñ la nuyoo eh, di la jox suñ kàddu nga nuyoo suñu question ñu ngi ko jëmale ci. lan moo waral euh, woote bi ngeen woote fii ak solo si nga xam ne moo nekk ci jàng alxuraan ak di ko le ak actualité fi mu toll nii ci wàllu sëriñ daara yi jafe-jafe yi ñi am ak euh, ñiy jóg di leen tudd ak di wax ci ñoom te xamuñu naka lañ war a waxee yaakaar naa loolu moom dana nekk euh, laaj bu spécial boo xam ne mën a ñàkk ci yow incha allah bisimilah. waaw bisimilah rahmaani rahim <coughs> alhamdulilah rabil alamin wa sallallahu wa sallam ala muhammad al amin wa ala alihi wa sabi wa tamkin euh, maa ngi leen di dellu nuyoo di leen sant baax ci seen teewaay jataay bi di leen jaajëfal ci teewaay bi ak jëf ju rafet yi ngeen jëf di nuy mbokk yi leen di teewlu yëpp di leen seetaan di leen bàyyi xel ci laaj bu am solo bi nga laaj léegi ci mooy bis bi li ko waral ak barab bi ñu nekk daru xaddim daru xaddim benn kër la ci kër Sëriñ Tuubaa yi Euh, ki ko sant san san sancoon mooy si Masamba Kanni Bousso ci ndege Sëriñ Tuubaa la sanc woon it te da ko sancoon ngir jaamu yàlla ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa eggal islaam euh, ci 1914 wala 13 kon yàgg na lool mooy jamon boobu fii fépp ab àll woon bu lëndëm waaye yàlla may na ko kàttan ak tawféex mu gor ko ànd ko mbooloo mi ba def fii barab bu mel nii loolu la samp fii daal samp fii barab bii nekk di léegi Sëriñ Tuubaa ak jaamu yàlla moo waral sanc dëkk bii ah, moom nag kenn la woon ci ci mbokk Sëriñ yi ko jege lool ndax ah, waajuram mooy Sëriñ Muusaa bi Sëriñ Muusaa bi moo ko soxna jaar ñoo bokk lépp kon daal ci wàllu ah, ci wàllu ak mbokk da nga naan Sëriñ Tuubaa doom mi bàjjanam la ci zahir ci li ñu wax nii kon mbokk mu ko jege la ñaareel ba moom ginnaaw mbokk googu lépp nekk Euh, dafa am lu gën a ràññiku ci moom te mooy ak taalibe ak bëgg Sëriñ Tuubaa ak ak liggéeyal ko ràññi ko lool yàlla mën ko xam-xam xam-xam sharia xam-xamu fiq xam tasawuf ku amoon xam-xam lu lool xam-xamu diine ak yéen nag pësteefu yi njëkk moom ku ràññi ko ànd ak nag ba yokkute nag pësteef ci gëm Sëriñ ak bëgg ko nam ko liggéeyal kon loolu ku ci amoon cër la mag boo xam ne nii taxoon Sëriñ Tuubaa bàyyi ko boppam cër dafa jagle goo xam ne suñu xaalis mbàkk wax na ba tey nee na suñu kenn am ak jagle suñu tubaab la am kon moom kenn la ci mag ñi ànd suñu tubaab waaye ku ci ràññu ko la woon mbooloo bari toppan ko nag moo xam ne suñu moo ko boole ak moom ci la sanc bari bari bari nekku fiiral la sanc bari bari na bari bi sanc ci ci dëkk ci dëkk bi wa rahmatullah mbokk yi lu bari di leen siyaare ci bés bi Eh, di jégalu ñëpp di baal ak mbokk julli ñëpp di am mbégte baax ci eh, teew gi ngeen teewaat ndax defal ngeen ko daa mu amoon solo lool mbokk yëpp seen xol sedd ci ñu bëggee ko lool kon ngeen dellu si waat war koo defaat am ngeen yàlla saa borom defal leen tawfeex yokk leen ba fi ngeen bëgg a àgg rek suñu borom àggal leen fa ah, comme ni ko ñëpp xamee rek ak mbokk yi jiite woon daanaka lu bari leeral nañ ko maanaam du tax muy guddaat lool lool du ko jar. waaye ngir fàttali xam ne rek euh, fii mooy pàkku euh, bu ñu wax Darou Khadim sëriñ Massamba Kane ni santoon ko ci ndigalal sëriñ Touba moo ak sëriñ Fallou ak sëriñ Modou Moussa ak sëriñ Massamba Mbacké <laughs> loolu ma nekkoon sabu sanc dëkk bi nii sëriñ Touba yi da ko fay digaloon ne ko mu dem di fa jaamu yàlla ak di ak di liggéey euh, bu jumaam ji àggee mu ñu mën di bàyyi ko fi dem di fa julli ji ndigal loola nag sëriñ Massamba fa nekkoon ànd ak ay taalibeem di leen yar di leen jàngal di leen tërbiyee loolu fi nekk woon ba jóge fi ay njabootam ci loolu lañ ko wutu woon léegi nag moom eh, suñu bàyyi suñu Ibrahima Bousso mi xam ne moo nekkoon am caatam moom it moom it eh, ci loolu la nekkoon bu fi jógee it njaboot gi ci loolu leen xirtaloon di leen nàmpataloon eh, ci loolu lañ nekk ba léegi moom it sabab bis bi mooy nag ci tënk rek wan gu ko Sëriñ Tuubaa wanoon su Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci njëriñam loolu la ñuy dàkk ñun sët yi ak njaboot gi di barkeeloo bis boobu noonu <laughs> ndax suñu boo defoon ci ay tawfeex ak i taysir waaw <laughs> loolu lañ ci waaw moo ko rek waaw di ko xëy da koy yendoo ba ngoon jot jàng fi alquran eh, jàng xasida salaatu alayhi ak istighfar yéene leen yool ba ñoom ak sëriñam bu baax ba Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul soo defee mën a yeewee waaye doomu Sëriñ Bousso bi mu eh, Sëriñ Tuubaa moo wax lii ci ñoom mm-hmm. eh, kooku kenn ci doomu Sëriñ Bousso bi yëpp noonu lay mel waaye Sëriñ Massamba Kanni mi kenn la ci ñooña mm-hmm. moom nag loolu daf ko doyutoon ndax bi sëñ bi demee euh, Mbàkke Bari dem ko ci liggéey bi mu nekk tout tànk ci ginnaaw nga xam ne ginnaaw suñ bu soobee la ndax suñ bu soobee bi bi xamante ne sëñ bi mu waajir liggéey bi ñi ci histoire ñëpp ne xam nañ ne suñ tubaa suñ bu euh, euh, Rasulullah bi nga ko suñ borom nee na seen jaay ji fee mi ngi dox ci kaw suuf yan bi dama la ko mën a yan ndax su ma la ko yanee dana métti ci moom ca dama ko rus ba lu ma ñaan dama ko meñ su ma ñaan dama teg ko naa ko teg ci ku ma ko tegee ci du ma ko tegaat loolu wax suñ bu soobee rasulaay moo ko wax suñ moo ko tubaa na kon da ngay muñ tuuti ay weer yu néew la muñ gaa jógee fii boobu tam ci teg nag su dëkk bi tamit sangewu na dëkk bi loraange du fa dugg kenn du fi nekk di fi di toggoo fi ci la suñ tubaa jógee nag dama mbakki bari sañcaat ko ndax bari mu mi nag sañ ci maam maaramoon waaye suñ tubaa da ko dekkalaat ba mu fi toog ab diir si mbusu bàcc ci liggéey mu dee si mbàkke jaale ko delluwaat ba mu delluwaat nag la yan bi doog a ñëw tubaab bi doog a ñëw dal ca koom Mbàkke Buur gi na ba fa nekkee ci la si Masamba Kanni maat jaayante waat ak moom ci boppam boppam nga xam ne bokkut ak jaayante gi nga gi nga xam ne bàyyam jibali dafa jaayante jaayante boppam ci Mbàkke Bari diir nag sëñ bi dem ci liggéey bi moom mu continué ci ba si mu ñibbisi si sëñ bee ko woo mu fekk su ko gànnaar gànnaar dem na fa ñaari yoon eh, am na ci yoon wax ne bi bi dem sax booba Cheikh mu ngi ndar lii ñuy waxal lamp bi yoon wi ci làmmiñ lu njëkk bàyyi ko lettre ba ko dem ci suñu seex euh, Roqe Fall suñu seex moom suñu Cheikh Fall euh, suñu Roqe boo fa demee lettre ba yor na ko yaakaar naa su ñàkk gone sët yi fi nekk am ko ci am copie bi ndax da ko bind wax ko ci ne ko dama sama sëriñ damaa woo yow waaye nag moo tax mënumaa jàdd ci sew waaye su ma dee ba wàññeeku ba moom ba moom sama bopp naa jàdd ci yow ndax yooyu yaay làmp bi yoon wi baat boobu si lam si musamkan la lékk bàyyi ko boobu si maa ngi gànnaar ginnaaw bi nag la doog xew ñëpp xewal ko kon boobu fekk na kooka am na ko suñu tubaabu noonu ci ci Cheikh Ibra ba ndax na wàllu pas-pas moom moo ci doon rayukaayam buñ euh, dellu see ci euh, taarixu dëkk bi ci cosaan dafa mel ne danañu dégg ne sëriñ mag bi moo ko joxoon digal ci euh, vers 1914 15 taarix boobu buñ ci dee dikkal amul euh, euh, ay sew sew wala loo ci mën a joxe comme ay leeral ci euh, lan la ko lan la ko sëriñ mag boo waxoon ak yu demee noonu. am na lu ñu si ay mbokk jot a wax. Mm, jërëjëf sëñ Guédé yaakaar naa ba tey am na ci lu siiw lool na am na ci loo xam sax buñ déggee kese sëñ Fallou Mbacké nettal na ci dara lu xaw a yaatu lool. ca moom sëñ Massamba Kanni moo doonoon sa boobu sax sëñ Tuubaa joxe ndigal loolu li war waraloon moom daa amoon yéene moom sëñ Massamba Kanni yeesali naawel. naawel ga nga xam ne mooy dëkku suñu maam maam astawalu Mbàkke ndax moom sëñ Moussa Mbacke fa la gën a àdduna bi mu ñëwee nag ba yàlla dogal booba eh, jàng na ba mu jàngam àgg sëñ bi boole ko ay fere ngir mu yar leen tërbiye leen mu bëggoon yeesal dëkk booba nekk faak ñoom dina fa yar di leen tërbiye bi mu ñëwee nag ba laaj ndigal sëñ bi fekk lu jiit lool gor na ay ay dëkk fii ñu nekk nii fu bare ba suus bari ci Touba waaye mag ñi niñ baaxoon rek ak góor yàlla di toxoo ak yeesal eh, bérébu cosaan boobu bi mu ñëwee nag di léemul sëñ bi aw jiwoom la ko sëñ bi laaj yéene moo eh, leeralal ko sëñ mu ne ko da ngay dem nga wool ma eh, sëñ Massamba Mbacke wool ma sëñ Modou Khari Mbacke bu bof di wool ma sëñ Mouhamadou Moustapha ak sëñ Mouhamadou Fadal ca nga ànd ak ñoom ñëw ñoom juróom ñooñu dëggal nag xëy na am na yeneen version yoo xam ne dana ci amaat mm-hmm. waaye bii ma xam daal moom man moom laa jëlee ci mag ñi mhm. man na maa topp silsila gi tamit ba mu àgg mhm. ndax maa ngi ko jëlee ci ku ñuy wax Mor Mbay ci misaal mhm. taalibe ci kër goo xam bay sëñ maram mu ngi taaw sëñ sàmbakaay ne moo ko daa nettali bàyyi sëñ ma jël ko sëñ sàmbakaay mi nga xam ne moo dund yëf yi kon loolu ab benn càllaloo goo xam ne nañ koo topp eh, ci la nag eh, sëñ Tuubaa digal mag ñi ñu sëñ ci dëkk yi sëñ sàmbakaay sëñ sañc dëkk bi tudde ko daarul xadim muy kër sëñ Touba sëñ Moussa Mbacke sanc Daarul Karim sëñ Modou Khare Mbacke sanc Pofdi sëñ Fallou sanc Ndindi sëñ Moussa sanc Tindoodi day mel ne kon loolu benn eh, falsafa wala benn siyaasa benn politique boo xam sëñ bi da koo jëloon ngir bëgg mag ñi ñu gaa ñu gaw Touba nga xam ne fu ne rek ab lamp dafay nekk di ñiit ba nga xam ne biir dëkk bi niñ ko ñoŋalee ba tey dañuy ñoŋal li ko wër lépp ba nga xam ne dara loo xam ne lu yàq la mën na fee dugg ndax fu waaye ñëw bëgg a bëgg a dugg ngir yàq rek da ngay fekk mag mu fa nekk wax day defar dan làmp bay leeral. Bousso Cumbuleen euh, fekk fii am mbokkam euh, Serigne Babacar Mbacke moom soxna Faty Khary Bousso moom soxna Khary Bousso moom Serigne Massamba Kandi ñu janoo ak moom waa Tawfekh Production di leen nuyu fas yéene koo laaj ay laaj yoo xam ne dafay aju ci Serigne Massamba Kandi ak ni nga xam ne noonu la ay xalifaam tegaloo yaakaar naa incha allah buñ ko tegaloo dina am ay leeral yoo moom solo yu mu ci yu mu ci leeral. Euh, Serigne Babacar waa Tawfekh Production mu ngi leen nuyu. jërëjëf waa Tawfekh Production ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm di rafetlu bu baax seen teewaay ci màggal bi di leen ñaanal itam suñu borom seen liggéey bi àgg foo xam ne dina kawe njort. jërëjëf. ginnaaw buñ bëggee tontu ci looj laaj yi nga xam ne laaj nga ñu ko muy sëñ Massamba ni ak ay xalifaam sëñ ma Kane nii ni nga ko xamee taalibeb sëriñ Touba boo xam ne sëñ bi moo ko joxoon ndigal mu sanc si fii ci Darul Xaddim boole woon ko ak sëñ Fallou ak sëñ Modou Moussa kee dem Ndindi kee di sëñ ma Mbacké Darou Kadim Darou Darou Karim sëñ Massamba Kane fii Darul Xaddim mu wax leen ne leen dem leen foofa ngeen di fa liggéeyal yàlla bu sama jumaa ji noppee ngeen jóge foofa di julli si loola ca la nekk ba suñ boroom dogal mu fekki sëriñam boobu di Cheikhul Khadim ki ko njëkk a wuutu sëriñ Maram Bousso la tudd yaayam moo tudd Maram Maram Bouba Kebe moo tax waaye moom sëriñ Maram moo ko njëkk a wuutu taxawu ginnaawam taxawu donga yeeg mbokk yeeg taalibi yeeg rak ñépp ak rakkam yeeg yëpp mu taxawu leen def ci lim ci war a def lépp waaye suñ boroom dafa dogal moom taxul mu yàgg fi lool ndax 1959 defe naa la fi jóge ba mu fi jógee itam sëriñ Dame moo ko wóotu sëriñ Dame Bousso imaam nekkoon na imaam fii ci jumaay Touba ji sëñ bi jël ko mu nekk fi di fi jiite moom it ci yoon woowu rek la awoon taxawu njaboot gi bu baax ci kem kàttanam ci ñu jàng ci ñu xam li ñu war a xam def itam li ñu war a def ba suñu dogal moom itam euh, 1992 defe naa la fi jóge moom itam bi mu fi jógee sëriñ Cumbuleen Buso moo ko wóotu sëriñ Cumbuleen Buso ñëpp xam nañ ko moom moo nekkoon imaam yi Masaalikul Jinaan foofu la doon jiite moom it mu taxaw taxawaay bu rafet li mu war a def lépp mu def ko ba suñ boroom dogal 2000 99 2000 moom it ci la wuy ji boroomam sëriñ Abdourahmane Buso wóotu ko sëriñ Abdourahmane moomu nag dëkk bii moom la yàlla dogal ci loxoom mu nattu ko moo ko natt moo fi indi courant moo fi def euh, marché bi moo ko fi natt ak daral gi ak yi ci aju yëpp moo tabax itam kër sëñ Masamba Kanni gi jumaa ji itam moo ko tàmbali woon nii defar kër sëñ Masamba Kanni loti si dëkk bi nattu ko daal ndax moom moo dajee moo dajeek jamonoom itam waaw moom itam mu nekk fi ba bi 2013 moom it mu wuy ji boroomam yal nañu ko yàlla fayal sëriñ Ibrahima Bousso wóotu ko aw ca tànk yooya def li mu war a def lépp moom itam fekk màggal gi itam sëriñ Ibrahima Bousso mooy ki ko taxawal fii mu ko ki ko indi fii ci Darou Khadim bi ñëwee itam sëriñ Ibra yoon woowa aw waaye moom it yàggu fi ndax moom defe naa 2013 14 15 rek moom it mu jóge fi bi mu fi jógee itam nag sët bi ko njëkk a wóotu mooy sëriñ Ahmadou Bousso suñu Ahmadou Bousso doomi sëñ Maram la sëñ Maram ba njëkk a nekk xalifa doomam moo njëkk a nekk xalifa ci sët yi def li war a def lépp moom itam taxawu bis yi bis bii nii taxaw yu am solo taxawu dëkk bi itam wéyal liggéey bi nga xam ne moom la ñu ko jiitu doon def bi fi jógee nag moom it yàggu fi na ñaari at benn at wala ñaari at yooyu ci la sëñ Fallou Bousso mii ñëw mi fi nekk nii yàlla na ko suñu borom yàggal te wéral ko te dëgëral ko moom doomi sëñ Cumbuleen Buso la mooy ab xalifaam moom fi mu ne nii mooy xalifab sëriñ Masamba Kanni sëñ Fallu Buso la tudd euh, moom itam yoon woowu rek laaw lépp loo xam ne maanaa lu baax la lu am solo la waaye toy nga xam ne maanaa lépp rek maanaa da koo teg ci yoon wa nga xam ne ña ko jiitu woon foofu rek fa lañ ko tegoon yi mën a yokk yëpp mi ngi ko yokk yokkaat na natt yi yokkaat li mu war a yokk lépp mu yokk ko yàlla ko suñu borom gën a yàggal te dëgëral ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi toog ak euh, sëñ Cheikhouna Bousso Cumbuleen di kenn ci njabootuk euh, sëriñ Fallou Bousso moom sëñ Cumbuleen Bousso moom sëriñ Massamba Kandi Bousso euh, ñu fekk ko fii nag ci barabam muy nitu xam-xam nit kuy yëngu ci wisaare njàngaleem sëriñ bi yaakaar naa dootuñu ko présenté kenn ñu ëpp ci ñi nga xam ne danañ faral di Euh, teewlu ay waxtaanam ak yu demee noonu euh, sëñ sëñ Cheikhouna waa Tawfekh Production ñu ngi lay nuyu euh, fas yéenee nag dugg ak yow ci xasida gu am solo goo xam ne édition bi ñu nekk muy màggalu ren gi dirasaat yi yi ngeen doon def ci mbind mi nga xam ne moom la ma sëriñ Massamba Kanni bindoon xanaa da ngeen tax taxsis ci xasidaam gi ñuy wax mantiqat yi gannaaw bi nga xam ne euh, bi nga nuyoo ba pare incha allahu ñu fas yéene xuus ci mbind moomu ana lan nga ci baaxe ñu ànd ak mbokk yi nga xam ne ñooy baaxoo di ànd ak Tawfekh Production bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man bi imaanin wa islaamin wa ixsaanin ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi ñu ngi lay delloo nuyoo di nuyu képp koo xam ne it mi ngi jàkkaarloo ak ñun wala muy dégg suñu kàddu di nuyu bokk yi nga xam ne ñoom nga àndal di leen ziyaara waaye di leen ndokkeel ci bis bi nga xam ne bisu fàttaliku ak ñaan la ñu di ko defal sunu kilifa di sunu maam di sëriñ Masamba Kanni moom sëriñ Busoobe di ndokkeel njaboot gi yëpp ci bis bi ni nga ko waxee nag euh, mel na ni ren màggal gi waajtaay wi dañ koo jagleeloon bis boo xam ne bisub euh, waxtaan la muy table ronde boo xam ne dañ ko jagleeloon kenn ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Massamba Kanni ci di liggéeyal sëriñ Touba defe ko këram waaye tànnoon tamit genn xasida ci xasida yi nga xam ne sëriñ Massamba taalif na ko doon ko jàngat muy xasida gu am solo di xasida gu mantiqat yi googu nga tudd loolu nag mel na ni am na solo lool te it yoon la woo xam ne euh, yoonu maddi aw la ndax feeñal na lu bari ci pas-pasu sëriñ Masamba ak ci xam-xamam ak ci euh, tawxiidam ak nim doon dundee lislaam euh, faxas na it lu bari nag ci yi nga xam ne dañ ko ko doon melal ci xeeti melokaan yoo xam ne mën naa am buñ ko toppee wala mafhum mi buñ ko yàqee mën na dàqonteeg doon nitu xam-xam nga xam ne kon sëriñ Massamba xasida googu genn la ci xasida yi nga xam ne moo ko taalif euh, muy mantiqat yi mantiqat yi nag xasida la goo xam ne daf ko taalif ci baxru rajaz waaye di ci leeral yu bari ñetti xaaj yi nga xam ne moo tënk lislaam wala moo composé lislaam muy imaan islaam ihsaan ñetti yooyu dafa daje ci biir xasida gi même sax bay du njëkk bi rek matlaul xasida gi mën nañoo wax ne da tënk ñetti yooyu ndax bi mu ne mantiqati kal jismi lil fi sunnati almuxtaari bil abdil xadim daf ko séddale ñetti xaaj euh, samaw làmmiñ ak samaw yaram ndax imaan moom lu ñuy fas ci xol la wax ko ci làmmiñ jëf ko ci cër moom nag mu boole loolu mantiqat yi lim xalaat fas ko ci ab xolam ba wax ko ci aw làmmiñam ak lim jëf ci ay cëram lépp mooy jublu yàlla subhaanahu wa taala loolu di tawxiid yu sell fii sunnatil muxtaari waaye jaare ko ci nag yoonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam te loolu mooy lislaam ndax Sëriñ Tuubaa waxoon na ni man abada gayra allahi fa sa yaclamu annahu laa ilaha illa allah wa man abada allaha bi gayri sunnati muhammadin fa sa yaclamu anna muhammadan rasulullah moo tax mu wax ne fii sunnatil muxtaar yi moom bi mu jubloo yàlla ci aw làmmiñam jublu ko ci ay jëfam waaye da ko awe nag ci yoonu yonente bi alayhi salaatu wassalaam waaye nag ci ban jumtukaay mu ne bil abdil xadim waaye nag ànd ak cheikhul xadim radiallahu anhu kon ñett yooyu maanaam wenn wenn baytu woowu rek tënk na ñetti mbir yooyu mooy iman islaam ihsaan ci biir xasida gi it daf cee wane ni dafa fas yéene jaayante ak cheikhul xadim radiallahu anhu te jaayante boobu mooy li sahaaba yi defoon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam nit yàlla yi tamit di muy dox seen diggante ak ñi nga xam ne ñoom lañ jaboote muy jaayante ak moom tam moom la wax jébbalu ci biir xasida gi mi ngi wane ne def na ko ci kanam Serigne Touba. ànd ak moom ngir jëm ci yàlla loolu mooy li Sëriñ Tuubaa daan def ci digganteem ak boroomam ànd ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu dafa mel ne noonu ko noonu ko Cheikhul Xadim daan defee mag ñi doon ko defee noonu seen digganteek moom noonu la ko defee digganteem ak Sëriñ Tuubaa ci biir xasida gi sax day wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko fi suñu boroom jëlee dafa mel ne daf ñoo wutalal jëmm joo xam ne mooy xaadimu rasuul bi ñu wutalee xaadimu rasuul it buñ dikkee la yonente bi nekkoon ca la nekk di woo nit ñi jëme leen ci yàlla di defar seeni jikko di leen xeertal ci lislaam loolee it nag ba mu wootee ña ko ña ko wuy si wuy nañ ko te man mii kenn laa ci biir ñooñee nga xam ne wuy si nañ ko muy ànd gum ànd ak Cheikhul Xadim radiallahu anhu kon eh, ci biir xasida gi ma ngi cee feeñal tawxiid tamit di tudd baat yi nga xam ne moo composé l'islam te mooy laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu l ilah mi ngi ko ciy tudd waaye ci biir xasida gi it ma ngi leeral ne man daal li ma fas yéenee doon mooy koo xam ne jaamu bi yàlla la boo xam ne da koy jaamu li fekk maa ngi dund kon dafa mel ne kooku doy na am njàngat ci <coughs> euh, bëggoon a xam tolluwaayu ma Massamba Kanni ci ak gëmam yàlla tolluwaayam ci digganteem ak jaamoom yàlla waaye tolluwaayam ci digganteem ak pas-pasam digganteem ak sëriñ Touba loolu yëpp nag da cee da cee cee sax ne ci waaye yar ci ak njabootam yàlla dimbali ko it ba ak njabootam yaru ci loolu loolu daal mën na ma wax ne mënees na koo tënk ci lenn ci ak dundam lenn ci eh, ay melokaanam waaye boo jàngatee xasida gi da nga ca gise ni koo xam ne kii la ba mu tollee ci jàng jàngal nañ ko ba mu xam ne war a xam ndax euh, dafa am melo yuñ koy melal te mooy euh, ak ak ndaanu kate waaye nag waroon nañ di firi lan mooy ndaanu kate ndax baat bi léegi dañ koo dañ koo diaboliser jox ko concept boo xam ne suñ ko waxee rek mooy ku jàngut xamul dara koo xam ne bu déggee teel ne matt ga damm na fekk moom baat boobu ñu ko jox suñu xamoon mooy kan danañ xam ne kon baat bu riche la ndax moom ba mu doolee ci jàng-jàng na xam lool yàlla teg ko fa mu ko war a teg bëgg lool Serigne Touba waaye jaawalewul nag place bi mu ko war a teg ak place bi mu ko war a teg yàlla xam loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teewul mu teg ko fa mu ko war a teg xam alxuraan teg ko fa mu ko war a teg nga xam ne moom dafa boole sharia ak xaqiqa nga xam ne li ñuy li ñuy tuddee Euh, sunni mën nañ ko ko melal ne moom la waaye waaw waaye li ñuy tudde it euh, murid euh, muridun sadiqun ba tey mën nañu wax ne moom la maanaam dafa boole li sëriñ bu bëggoon ñu boole ko sharia al mutahara maa ma tayassara fi l haqiqati loolu moo moo waa fee ni ci béy di ndax mantiqati lil jismi kal baaxil xadim fi sunnati al muxtaari bil abdil xadim loolu wane na ne kon moom dafa boole woon ñaar yi nga xam ne day amee day amee maanaam maa rek bil abdil xadim maa al abdil xadim waaw waaw bu defee mooy ànd ak yonente bi ànd ak mooy li suñ tubaab noonu yooyu mu wax ci Ahmad Suleyman mii mi ak ci yeneen barab aslamtu nafsi li rabbin jalla maa allazi boobu moom maanaam jébbal naa sama bopp yàlla waaye nag ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax yonente bi mooy ki nga sunu borom am ko yebalee ba masaa di taxaw képp ku jug jëmati ci yàlla te jaaroo ci moom rek doo àgg moo tax sëriñ bi mu jógee ci yonente bi la jaar naka noonu it ku jóg jëm ci yàlla te yonente bi nekku fi waaye am na ay kuutaat yu fi nekk faaw jaar ñoom doo ko mën a àgg ci yonente bi sallallahu doo a àgg ci sa borom subhanahu wa taala euh, a jugit di ci yàlla doon na jaar ci ay jaaruwaay waaye bi ne ba yonente bi nag alayhi salaam mu joteel boppam ci yonente bi dafa dagg lépp lu doxoon digganteem ak yonente bi def yonente bi muy wasilaan digganteem ak boromam ci loolu li la àggee ci boroomam subhaanahu wa taala te lenn lu ci nekk moo ko bindal boppam ci ay xasidaam te lim bindal boppam nag amul lu ko gën a wér euh, sëriñ Massamba it coo ci la nekkoon moom it diirub ak dundam kon daal mbokk yi ñu ngi leen di yéen waa Tawfekh Production ñu ngi rafetlu seen taxawaay bu am solo bi ndax daaw àndoon ngeen koog bokk yi ren ngeen dellu siwaat kon ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala fi ngeen bëgg seen liggéey àgg fa sunu borom àggale ko fa defal leen tawfeex defal leen ndimbal te boole ñu jëriñ sant nañ leen baax suñu xol sedd na ci yéen. jërëjëf euh, sant nañ bu baax a baax kooku ma ne woon sëñ Seexuna bu sa cumbuleen euh, macha allah indi na fi ay leeral yu am solo euh, xasida gi nga xam ne it matla bi indi na ko fi mu mantixate yi yaakaar naa leeral na ci bu baax a baax a baax a baax kan mooy sëriñ ma Massamba Kanni nga xam ne xam gim mu xamoon yàlla xam ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag xam gi mu xamoon sëriñ Tuubaa ne it ci moom la war a jaaree moom la war a àndal liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey suñ borom ci tollu lislaam mag ñaa ngi noonu ñii la sëriñ Tuubaa yaral boppam ñii la sëriñ Tuubaa defar ñii seen dara du waroo ak lislaam seen dara du waroo ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan at mu ne yàlla ko fekkee ci jàmm ak salaam wasalaamaaleykum wa rahmatuhu wa barakaatu. bis bii li ko war a moom tawféex joo xam ne suñu Tuubaa da koo defaloon ci boppam ndax Sëriñ Xaadir naan suñu suñu sàmm ka dafa am xaas ci Sëriñ Tuubaa tawfeex ji mooy lan weer wi ñu nekk di weeru gàmm fukk fukki keroog guddee gàmm ga fekk booba dafa amoon yéene dem dem ci dem dem dem madinaat madinatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam sëñ Tuubaa tàggu si bi sëñ bi daniiru ko tuuti ba benn bi sëñ bi woo ko guddi gàmmu ñëw mu ne ko toogal mu toog ci ci barab sëñ bi toog bi jàng li may jàng ba mu yàgg peram sàkk mi xewit mu gis ne yonent bi jóge ci barab ba ba ni mu agsee ci sëñ bi ànd moom toog di ko ba ñu ba ma xelam yoo xam ba fajar si xar ñu bokk de ba fajar si xar la ko doog a yebal am na ko yéen mu ñëw fekk kooku dem mu ne ko ma sàmm ndax xam nga kooku mooy kan moo ko demee ko mooy xëri bari yéete yàlla bi na ma tax yéen ji nga amoon yéene dem fekk moo tax ma indil la ko tëfra kooku suñu tubaa defal nag faaw sa ñi nga bàyyi ginnaaw war nañ ko màggal di ci sant suñu tubaa eh, jazakallahu na Serigne Cheikhouna Bousso yaakaar naa waxtaan wi ku ko déglu lu bare bare bare dina leer ci ma Massamba Kanni kaanaa waxtu yi xam naa ne moo xaw a waaye bu ñu sañoon danañ ko topp topp topp moom gën a yaatu ndax question yi ñu war a laaj moom yaakaar naa xajul ci benn jotaay waaw dañ koy yërëm lool ci wax ji ak euh, coono bi ak gan ñi ñëw di nuyoo waaye wax dëgg fi yàlla doyu luñu ndax question yi ñu bëgg a laaj te xam naa ne ci moom lañ ko yaakaar ñu ngi ñaan nag yàgg la fekk te ñaan gi nga xam ne moom nga ñu ñaanal it bu sa bàlli suñ borom nangu ko